asalaamaaleykum maa leen di nuyu di leen ziar yéen a ngi am jàmm bu baax ah ñun de sàmm lu baax rek lañ xam ci moom taalibe sëriñ Saalim bëgg Cheikh Béthio jox dëgg sa yàlla loolu laa xam ci moom soxnaam laa nag nekkul li ma nekk soxnaam moo tax may wax loolu waaye soo fekkee nit ku dëggu ku baax koo xam ne alalam boolewu ko kenn loo ko wax rek gëm na ko mën nga koo nax ci sëñ Saalim mën nga koo nax ci Cheikh Béthio te da koy nangu lii moom laa xam ci moom ku bëgg sëriñ Saalim bëgg Cheikh Béthio dana ko jaral mu liggéey ci at mi dajale ko def ko ci sëñ Saaliw ak ci Cheikh Béthio su xëyee wutiwaat loolu jaral na ko ko jaral na ko jël alalam jox sëñ baat sëñ Béthio ak sëriñ Saaliw ak njabootam mu wutiwaat jox leen kon kooku bëgg na sëriñ Saaliw bëgg na Cheikh Béthio mu am doomam ju góor taawam tuddee ko sëriñ Saaliw kon kooku ku bëgg sëriñ Saaliw la mooy ñaan yàlla na ko sëñ Saaliw fay ak Cheikh Béthio lépp lu mu bëgg ci bis bii yàlla na ko yàlla defal bu fekkee ko ay déwén ni déwén chaque année bu ñëwee mu gën a yokk te bu soobee yàlla lay gën a yokk ndax ñoom kenn du ànd ak ñoom di daanu ci barke Cheikhul Khadim xanaa ak mbaax rek parce que nit ki boo baaxee yow koo gis def ko ni sa bopp xàmmewu ku baax ak ku bon koo gis def ko ni sa bopp jàppee ñëpp sa bopp ah loolu daal lu baax la te loolu moom noonu lay dundee maanaam xoolul ni kii dafa bon xool ni kii nit ñi dañ ko beddi dara mom daal lu kum gis daal def na li bopam fo taxaw nak ne sam ñun la kër ga gën a parce que ni mel ci ñom la ni mel ci ñom la donc fajam gi muy faj day faj nit sax mu demee non ordonnance day lebal nit sax ordonnance nga ne ko ah sam da nga xam diw xom ko de waye dama japp ne bis dina ñew mu fayam loolu donc bu ko fayé bax mu ko fayut bax man de loolu dong laa xam si moom wax dëgg si yàlla lu baax rek rek laa xam si am. as de suñ mbokku taalibe bu baax la moom dafa bëgg sëñ Béthio ba képp koo xam ne xam na ne taalibe sëñ Béthio nga da jàpp ne yow yow ak moom yéen a bokk ndey ak baay waaw loolu daal moo waral mu bàyyi ko ba Kaolack ñëw fii ngir ànd ak moom ñu di set avril bi nga xam ne lépp lu cantaakoon am ci bis bii la ko am. lépp lu sëñ sang ba Cheikh Béthio am ci bis bi la ko am bis bi moo waral ñëpp xam Cheikh Béthio bis bi di 17 avril ci la Serigne saaliw waajale sëñ Béthio jëli ko ca toolu baayam ba kulli cuun sëñ Saliou moo ko jëli waajal ko forme ko ngir ni waxoon ne jox moom day yeesal jamono te pour mu yeesal jamono ci ndaw ñi la ko mën a def ci ci ndaw ñi dafa bëri ay intellectuel mu jëli sëñ Béthio muy intellectuel mu waajal ko boo taqalee ko ak ndaw ji ngir jamono gën a yees waa sëñ li nga xam ne moom a ci gën a marqué mooy comme lu mu doon wax rek nee na moom toog na ci kanam Serigne saaliw pitax mi muus mi di ko yoot di yoot muus mi di yoot pitax mi mu ngeen toog rek ne ewaay muus mi pitax mi yàlla na mucc pitax mi yàlla mucc nee na naka la muus mi di yoot di yoot ba jege pitax bi pitax mi mel ni dafa arrière rek daal di cof muus mi bi mu ko cofee rek muus mi arrière rek daw bi mu dawee mu ne mu ne cëy dañuy gestu gis Serigne Saliou fekk Serigne Saliou a ngi ci doon bàyyi xel sëriñ bi daal di sëgg Serigne bi daal di sëgg mu daal di koy xool ne ko mbàkkee lépp yow Serigne bi daal di ne nii muuñ sëgg loolu daal nekk na loo xam ne lu yéeme la ci euh, bi ko nettalee lu ñu loo xam ne lu yéeme la daal loo xam ne moom nee na dund na ko ci Serigne Saliou. waaw li ma la ji mën a wax sama teewaay ci bis bi sama départ ak El ko maanaam nekkandoo ku rafet koo xam ne nii lu mu xewle war nañ caa nekk te tàmbali ba ba ca jeexital ba ndax moo ko ji ndax laabir ak wayef nekk docteur kër gum dugg génn dem ci ka des xale yi miin ko ñëpp miin ko bëgg ko muy def ci ñun loo xam ne nii mënuñ ko def ci moom amuñu ko payam kon boo amee lu toll ni sëriñam fonk ko ba di ko defal lu mel nii kenn waruñu caa jiitu kenn waruñu caa mujj alaaji daal amuñu fayam li ma la mun a leeral ci gàttal daal ma wax nag mën na cee bañ a bari ndax alaaj moom lu ma wax rek waxaale naa ñi ci des ñëpp ndax yéene ji moom xam na ne ñëpp àggal nañ ko. ah bis bi de dañuy ñëw rek santale ko Serigne Saliou Cheikh Béthio parce que ku xam ne ku xam El xam ko ci Cheikh Béthio te ku xam Cheikh Béthio xam ko ci Serigne Saliou te Serigne Saliou ak Cheikh Béthio day mel ne ginaar ak i dunqam kenn mënul dem bàyyi moroom ji te comme que yàlla dogal ñu bokk lu ñu bëgg rek lépp lu mu ci woote rek dañ ci ànd moom dem ci ba mu jeex ndax moom bëggul dara lu dul Cheikh Béthio bëggul dara lu dul Serigne Saliou te yàlla dogal na muy nit ku baax koo xamante ne nii ak mbaaxam kenn mënu koo toog di koy wax parce que nit ku njaboote ñëpp la bëggul dara amul dara ndax doomu aadama yi ko ñaanal yàlla muy dem dem dem ba ay doomam di ko ko defal mu toog ci piliyaanam doomam yi di koy wër di ko koy defal ci daraja rasulullah waaw loolu moom suñ ci waxoon buñ ci soree rek dañuy dañuy ragal ne interview bi du yegg ndax wax dëgg yàlla sëñ Saliou jamono yi ñu gën a nekk ay tuut tànk buñ daan jàngi bu daan dem ci Xelkom wala njurul dañ ko daan ci kii bi boobu mu ngi yoroon benn oto Mercedes bu blanc dañu daan jox ay biscuit mooy biscuit bu woo boobu bu cent francs yi dañu jox par ay ñetti biscuit ñu naan ko maam yàlla na nga fi yàgg dafa mel ne nag loolu noonu moo waraloon ñu ko doon topp man nag ci laa ko toppee ba nii xaw ma kenn wax dëgg fa neex yàlla moom rek laa bëgg sama xol bi moom moo si nekk waaw li mu def ci nag wax dëgg yàlla lépp ba mu ñu dëddoo ba léegi yëg nañu ndax dafa mel ni suñu àdduna moom moo ko doon suukar waaye ba mu ñu dëddoo ba léegi nii daal dañuy doog a xam ne àdduna am nay jafe-jafe mais bi mu fi nekk sentiruñu woon dara ndax moom rek lañ doon yëg digganteem ak Cheikh Béthio doo wax dëgg fa neex yàlla Cheikh bi moom dafa nekk koo xamante ne bi muy bëgg Serigne Saliou da ngaa gëmmu tëx lu parce que jafe-jafe bu nekk gis nañ ko lu nekk ci waxal nañ ko ko waaye mu gëm ne rek Serigne Saliou la bëgg ba lépp lu mu am tey jii nii di ko koy sante fu nekk Mbour Mermoz Dakar extra extra ay feneen ak feneen ak feneen loolu noonu tey jii ak ak yaafuusam may ko ko te ku nekk xam na ni Serigne Touba mooy Serigne Saliou te ku bëgg Serigne Touba bëgg Serigne Saliou lépp lu nekk ci àdduna tamit lu baax am nga ci wàll boo xamante ne am na commencement waaye amul yemukaay di ko ñaanal moom tamit yàlla yokk ay leeram ndax jàmbaari Serigne Saliou la woon moo fi indi cant indi fi bernde te kuy dem bay taxaw ci mbedd benn rek yàlla ak Serigne Saliou kii Seex moo tax nga def nga di koy def ndax nag def na fi lu nekk ci loo xam ne. Eh, di am mbégte bu baax a baax ci teewe gi ñu teewee bis bi. Eh, muy bis bii nga xam ne mooy bisub 17 avril di gisee Seexuna Seex Saliou ak Serigne Béthio waaye sëñ Alaaji Samb jaamu Serigne Béthio waaye jaamu Serigne Saliou eh, di ko dundal fii eh, te ànd ko ak ñun ñu di ko ci sant bu baax yëg-yëg biñ ci am mooy tawféex ji ñu yàlla defal ba ñu fekke ko te sëñ Xaadim mii di faral di wax ni dañoo fekke ñaanuk sëñ Touba fekke nangu ga ndax ñaan nga moy bam koy bind bo xolé bayit wi gàkkaarloo moom xam ni sëñ Touba ko ñaan nangu gi di tay ji ñu téwé ko tek ci suñu bëtt mu leer ñu ni la seigne Touba ñaanon tay nangu gi am waye ñu am tawfiq nangul Serigne Saliou jagleel gi mu leel Serigne Béthio beral ko ci bopom wajal ko tan ko def ko ab tanef ci bir tanef yi muy ab jaamam euh, leppam di Seexuna Seex Saliou Mbacké waaye noonu ñi itam ñu am yëg-yëg boo xam ne eh, Serigne Saliou yamale wuñ ko ak dara dañu wax ne yàlla to bi sëñ Touba la ci sëñ Saliou am doy nañu ñu féetewoo ak Serigne Saliou te bis bi di bis boo xam ne du azar ndax ku ne xam na ni altine bis la ci bis yi boo ko tuddee sa dem ci sallallahu alayhi wa sallam tey jii di ñaar fukk ak juróom ñaar ci guddi di guddi goo xam ne laylatu xadar gi sëñ Tuubaa fanaane xëy di ñaar fukk ak juróom-ñaar mu woote yoonu murit ñaar fukk guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar la tombeel tombewaat ak 17 avril waaye doon weeru koor kon Serigne Béthio dafay mel ni daraam azarut euh, la mu waxoon ni Serigne Saliou dafa ma ni woon bala nga maa xam dama laa woon ginnaaw dafay mel ni moom it euh, loolee Serigne Saliou daf koo koo rafaatale ba moom kat dafa mel ni bi mu wanee ginnaaw lañ gën a xam dëgg dëgg mbiram kon kat ngi am mbégte bu baax. di am xol bu sedd ak yaakaar ju dëgër ci tawféex ji ñu am ba teewe bis bi. waaw waaw day euh, cant rek xam naa dana néew doole lool ci mën cee wax ndax sëñ Alaaji Mbay euh, mën naa ne li ci jaroon na wax lépp sax wax na ko waaye cant moom du doy ndax jàmm yàlla du ko jeexal te ñun duñ ko doyal euh, looloo sabab teewaay bii lépp day tàbbi rek ci ci ci ci sant di rafetlu teewaay bi. ak jëf ji nga xam ne sëñ Alaaji Sàmb jëf na ko te dara waralu ko lu dul sant may wax ne sant nag daa bokk ci garaaj yi gën a kawe ndax diggante muñ la ak sant te nit ki balaa muy am maqaama cant dafay xuus ci géejug muñ a nafu baadal kadd nit ki faaw mu jaar ci ay coono ak ay tolof-tolof ngir la mu bëgg may wax ne nag jamono bii ñu toll moom jamonoy sant la ndax coono jeex na ndax ku xool teraanga yi ak xéewal yi ni mu demee nii da ngay xam ne ka ko sonnoon neexul ci moom ndax mbir mu nekk rek neexul ci ka neexal lu neex lu nekk neexul ci ka ko neexal te lépp Sëriñ Tuubaa la rek moo liggéey liggéey bi moom Sëriñ Tuubaa mi ñu yaakaar te wóolu ko te doyloo ko ba muy nekk ci liggéey bi kenn fekk ko ca mu liggéey bi liggéey bi ba mu sotti kon sant rek moo nu war kontaan nañ lool bég nañ lool. salaamaaleykum maa ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne si ñu ngi seetaan partout dans le monde di nuyu ñëpp ñi nga xam ne si tamit ñi ngi seetaan site bi nga xam ne si mooy ABS Pro di leen invité aussi tamit ñu abonné. laal cloche de notification bi te xam ni site la boo xam ne si day jàllale lépp loo xam ne dafa soxal askan bi day jàllale lépp loo xam ne si tamit dafa yitteel askan bi kon ñu ngi leen ci invité bu baax a baax a baax ñu abon abonné tey partagé aussi lu am solo la ci. gannaaw loolu tamit euh, suñu teewaay fii ci kër El Hadji Samb day suñu xarit di suñu wëlëre depuis ñu xamante tamit euh, muy kóllëre boo xam ne si sëriñ bee ko dogal donc tamit mu doon koo xam ne si. taxawee nañu côté bu nekk ñuy seq ay yitte yu bari di seq ay jëflante te lépp di rafet donc kon bés bi bés la boo xam ne si bi mu ñu ko waxee xat na ci weeru koor la te it yitte yu bari na donc mënuñu def lenn lu dul dagg suñu ay yitte ñëw teew fi euh, taxaw fi taxawaay bi nga xam si moom la fo fa war mais aussi tamit di ko ñaanal tamit moom it lépp loo xam ne si def na ko ci bés bi euh, yàlla na ko ko sëriñ bi nangul parce que noonu la mën a sonnee ci sëriñ bi parce que wax gi mu koy wax ak bëgg gi mu ko bëgg ak cofeel gi mu am ci moom loolu dëgg ci moom la aussi lu mu yàgg a doxe la lu mu yàgg wax la aussi lu ñu xam ci moom la donc kon El Samb dañu koy ñaanal suñu borom defal ko kàttan tawféex ba li mu yéene ci sëriñ bi yëpp rek mooy gën a ko parce que li mu def lépp jàpp nañu yéen ëpp na doole loolu Yenem ëpp na doole loolu donc kon yaakaar naa ni dañu koy ñaanal rek euh, mu eggale yéenam eggale li nga xam ne si moom mooy bëgg-bëggam ci Serigne bay Thioune ñuy sant ñëpp nag di gërëm ñëpp ci taxawaay bi soxna Ami ak njaboot bi yëpp rek ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax sant. asalaamaaleykum jëwriñ ñu ngi lay siyaare bu baax di la balu ak di ñaan suñuy kàddu fekk la si jàmm si barkeb Serigne Saliou barkeb Serigne Béthio euh, dañuy santaat Serigne Saliou rek euh, si bés bi nga xam ne mooy 17 avril. ñu woote ko sëriñ Serigne Béthio woote ko ñu koy defee fii ci Touba Darou Manane ci ndigalu Serigne Saliou Thioune euh, bokk taal bi yëpp ñëw mbokk dëkkandoo yi suñuy bokki bopp ñëpp ñëw fekk si ñu si euh, wuy si ñu wuy si bu neex wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñëw si jàmm kaf agréé euh, santaat sëriñ bi togg yu bernde joxe ko wax dëgg yàlla ñu xewlu bu baax a baax te amu ci xej ak seen ñu si santaan mbokk taal bi yëpp di rafetlu teewaay yi ñëpp wax dëgg yàlla sant nañ baax daal sant nañ baax. waaw sabab bi dafa nekk loo xamante ni 17 bi bi ñu koy woote bi ko Serigne Béthio daan woote defee dañ ko daan defee Madinatu Salaam muy fële ca côté Mbour foofu lañ daan woote 17 bi léegi nag ñu dem ba 2020 ay dogal tàbbi am benn feebar bu ñuy wax coronavirus wàcc si réew mi Serigne Saliou Thioune joxewoon woon ndigal ku nekk fu nga nekk na nga ko fa defee defee nga ko fay defee nag na nga togg ay ñam yu day jox ko say dëkkandoo euh, te bu si am xëy ak seen ndax boobu dañoo woot dañoo tere woon ndaje ñu defoon ko lu yem jox ko suñu dëkkandoo 2021 bi ñëw gannaaw mbooloo mi ñëwoon na fekk suñu ñu ne ko defaat yaatal ko décentraliser ko amoon amaat si ndigalu sëñ bi nag.

bés bi rek dafa waral lu bare bare bare muy 17 avril bi ñu nekk ndax 17 euh, avril ñun moo ñu def ay murit particulièrement à moi man su ma nekkee murit 17 avril moo ko waral ndax 17 avril si la Serigne Bacco taseeg sangam ba Serigne Saliou Mbacké euh, bés bi may ñu loo xamante ne nii du ma ne Serigne Bacco mais bés bi laay wax ba pare soo si jëmm ji muy Serigne Bacco 17 avril dafa dogal nii si la Serigne Saliou ak Serigne Bacco daje woon Serigne Saliou may sëriñ Bethio ay may yu baree baree baree bare bëri taxoon sëriñ Bethio naa ko sant fii ak ëllëg dinaa ko sant tey ak ëllëg 17 avril dafa am lu ci law muy la sëriñ Saliou waxoon ne ku jébbal ci yow am ngërëmul yàlla mu ko waxoon xel xelkom 2004 daaray daaru salaam dis loolu tawféex jooju ñu am ko ci 17 avril amaat ci tawféex it sëriñ Saliou ne ko mbaa yàlla na la mba yàlla koo bokkal ndey ak baay amaat tawféex koo tinu yàlla jégal ko ñu amaat tawféex bu 17 avril lu waral it Serigne Béthio def si ñun jëfin woo xam ne particulier man li Serigne Béthio def si man la laay ëpp loo mën a wax wër na Serigne Saliou Mbacké du ma triche mën naa ni kenn def lu ma dara lu ma am Serigne Béthio ma ko may lu ma lu may jëf Serigne Béthio tax ma koy jëf ñëpp xam nañ ko ci man ni may ni may doxee ak doomu aadama yi ni may jëflante ak doomu aadama yi Serigne Béthio la man barki Serigne Saliou billahi wër na Serigne Béthio amul lenn loo xam ne dama koy namm am te te du faj te 17 bi moom ma ko may moo tax euh, Serigne Béthio pour pour ñu am lu ñu marqué si moom du du doon loo xam ne len la lu ñuy téye wala wala lenn lu ñu ji ndax euh, li ko Serigne Saliou wax rek ku la gis dem àjjana ku la xam dem àjjana bi ko Serigne Saliou waxee le 19 septembre 90 sa mbuur Serigne Béthio daf na ko ma Mbàkke lu waral lii mu ne ko Serigne Saliou dafa nangalu nu mu nangalowul kenn kon yaakaar naa ne euh, Serigne Béthio lépp léppam tawfeex la léppam loo xam ne lu ñuy lu ñuy marqué si ñu naan lii la rek amul sëñ Béthio daal euh, mbir la moo xam ne ndimbal la si kaw suuf ndimbalu jaam ñi képp la waaw kon dañuy li ñuy def muy delluwaat di ko santati waaw santati ko rek rek rek ci lañ nekk man Alaaji Samb de lépp lu mu am sëñ Béthio ko moom waaw lépp lu mu am sëñ Béthio man amul lenn lu may xalaat si loo xam ne da dama naan lu may sikki sàkk déedéet wër na Serigne Saliou Mbacké bés bii di sa am bi ñu koy wàcc bi ma joxee sama jëf boppare dama yaakaar ne woon du lii du am sama soxnaan si kër dama ne ko est-ce que lii duñ ko toxal bàyyi ba cortège passé mais billaahi barke sëriñ Béthio ci ëpp na deux cent mille francs amul fenn fu ko fu ma ko xalaatee wala fu ma ko lebe wala fu ma ko ñaanee taw feex daa man kar ma man ginnaaw won na sëriñ Saliou Mbacké sant naa ko bu wér sëriñ Béthio sant naa ko bu baax barke sëriñ Saliou man de dimbali na ma te dimbali na samay mbokk it ndax wax dëgg yàlla ragaluma te tuutiwuma tiituma it kon su ma defee may koo xamante ni am naa lu may xelaat ci ragal ko wala li may li may raf si yàlla tuuti sëñ Béthio moo tax sant naa ko bu baax a baax sant ko rek laa am te dinaa ko def nag ba faw jóge jërëjëf waaw mbokk internet day euh, li ñuy tàggoo saa su ne mooy sant ABS Pro waaw ndax euh, fuñ ne ñu fekk ñu fa ñu nag ñoom ba xel kom si mbàcc bi dañuy nekk ak ñoom si ngóob mi dañuy nekk ak ñoom si lépp dañuy ànd ak ABS Pro di santaat ñëpp di santaat bokku dëkkandoo yëpp di santaat waa koñ bi waa Daaru Marnaan Seexaw bi wóor na Serigne Sall seen fay ndax euh, côté bépp féete nañu ci côté bépp nag tey bés boo fi ñëwee samay bokki bopp léegi lañ fi ñëw ñu fi nekk ñëpp liggéey bi ñu ko jëf ñëpp samay bokki dëkkandoo lañ